jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne mbokk yi bu ngeen ñu gisee fii ñu nekk nga xam ne ñu ngi stade Léopold Sédar Senghor euh, PAF production woo ñu fi njiital ba di Pape Abdou Fall di régulariser combat ñaari ndaanaan yi nga xamante ni Sénégal gépp ñu ngi koy xaar gannaaw saison bi bi mu ubbee ba léegi 2017 wala 2019 2020. ba tey dégguñu benn combat boo xamante ni mën nañ ci duut baaraam ni combat bi taxaw na combat Papa saw ak Siteu jàpp nañ ni taxaw na waaye li nga xamante ni moom la war a def tey mooy régulariser combat bi fii ci CNG ñaari ménageurs yi dinañ ñëw ménageur Papa saw ñu gën ko xam ci per Ba ménageur Siteu ñu gën ko xam ci per Max Mbargane nañuy dugg xool pap Abdou Fall lu mu ñu woowee bis bi nu koy waajee ak combat bi fii ci CNG nan lay doxee mbokk yi ñu ànd ceeg wasaare làmb borom mbég meeg taar mi sëriñ Bass yaa baax yaa gore let's go. waaw dañ koy dolli sant rek. waaw sunu borom moom dañ koy dolli sant rek incha allahu rabbi ci kanam tuuti ñu matérialiser ko daral xelu askan wépp ñëpp xam ne daal cinq moom bisu Siteu la ak Papa Sow bisu làmb la waaw. wi. condition yi kañ moom bi ci njëkk mooy suba suba na àdduna bi yëpp mobilisé wu ji Marius Ndiaye fête gu rëy fay am waaw amul jël xaalis jënd dugg déedéet application la agricash tey boo ñëwee foofu joxe sa portable am ñu la ko télécharger nga ñëw dugg ñu feetu ñun ñëpp waaw suba bis bu rëy la te dinañ fa gis spectacle bu am solo bu am doole si te wan leen li mu fas yéene indi Papa Sow wan leen li mu fas yéene indi 16 heures incha allah bu kenn tardé amateur yëpp nañ ñëw teg ko ci loxoy président Doudou Diagne Diecko euh, fans club yi sita ak ay supporters am ñu ngi leen di xaar nañu mobiliser wu Papa Sow ak ay supporters am ñu ngi leen xaar nañu mobiliser wu ñoom ñëpp. nañu innovation bi nga indi Agricash déjà yaa ngi koy yaa ngi koy wax léegi mu nekk partenaire boo xamante ne indi nga ci innovation bi pourquoi loolu. waaw no ay jéego la rek xam nga dama leen doon wax ne rien ne sera comme plus avant waxoon naa leen ko ah neewoon naa leen nit euh, mbir mi neneen lay demee neneen la ñuy taxawee amatul rien ne sera gratis formule yi nag dafa bari xëy na boo doon wax gratis nit ñi ñuy def ni da ngay làmb sa poche fay daal di dugg mais attends tout ça sont des astuces daf nuy permettre ñu gën a indi organisation ci làmb daf nuy permettre it ñu gën a filtrer clientèle bi nga xam ni mooy ñëw muy ci amateurs yi muy ci euh, fans club yi waaw mais boo ko bàyyi noonu ubbi ko rek genre Pape Abdou Fall bis yi doublon yi dañuy bëri lu neex waay def. dorénavant nee nañu euh, face to face pour mu am il ñu régulariser combat yi fii ci CNG loolu noonu est-ce que du leen yéexal on la l'habitude de voir combat yi daan ngeen def ay face to face sans pour autant ñu régulariser. Oh, ñun ñu ngi biir CNG loolu. charte bu fi yàgg nekk la xëy na ñun ñoo dul wàccoog siraatal mustaqim rek wax day leer man ñëwuma fi di wax ci pré trou président promoteur yi du dëgg bien que maay président promoteur yi euh, charte boobu yàgg na fi ñun ñoo ko dul woon suivre parce que nous sommes en famille promoteur lutteur manager amateur CNG ñun ñëpp benn lañ. donc ñun ñoo doon outrepassé rek yooyu mais amul problème. mais yàq loolu da yàq wala pour yéen dafa am lenn loo xamante ne ko ci ba gis officiel daf ci baax. xam nga boo gisee tey ñu officialiser combat bi nii mënoon nañu bàyyi ba après. mënoon nañu bind lettre rek ne dañu bëgg a def face à face suba. nit ñi daje Marius Ndiaye ñu feetu ba ultérieurement ñu def mais loo gis rek pour plus de garantie plus de confort plus de responsabilité ah pour valoriser aussi notre personnalité day jaadu rafet ñu daal di ñëw fii dalal xelu askan wi régulariser komba bi sénégalais yëpp xam ni officiellement date bi le cinq la. wax ju bari baaxul ci dara. jàkka ji moom jàkka ji mu nga nelee ku mën rek na jiitu waaw comme ni Souleymane Faye rek yaay jiitu maay jiitu jiitul boo ko mënee boo xamulee it nga dellu gannaaw rek. ñaata journée ren ñaata journée ngeen fas yéene def ren. waaw waaw suñu waxu démb de mooy suñu waxu tey bu ñu yàlla dimbalee daal dinañ am ñaar bu ñu yàlla dimbalee nag waaw nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla bu laaj beneen question nag. xam naa xam naa fi nga jëm. <laughs> xam nga boo xoolee. Euh, combat bi dañ ko monté am na ay weer bi combat bi monté am leneen lu juddu muy exclusion wu Papa Sow ci écurie Fass muy benn chart deuxième chart bi mooy pour que Papa Sow euh, mën a bëree il faut que mu am écurie pour door a mun a am licence ñu tuddee ko affiliation ak leneen ak leneen xëy na les termes ne manqueront pas à l'intérieur ah ci la ñu ñoom organiser seen assemblée général def seen PV déposer ko ministère de l'intérieur créer seen structure yàlla alhamdulilah rabbil alamin loolu lépp passé nañu ko ñu gis ni nag jaadu na ñu daal di woote régulariser lépp dem jàll ci leneen daal loolu rek la amul leneen ñu gis combat bi bokk bi taxaw est-ce que taxawloon ko yomboon na. waaw yomboon na yomboon na parce que pour être honnête bokkul woon ci suñu plan. suñu plan Tapha la woon ak Ama Baldé ñu waxtaanoon ci ba jubo ba dal desul lu jul ju joxe avance yi am na ci journaliste yu teewoon ci kër gi côté Ama Baldé changé de euh, d'option ñu nangul leen ko di sant yàlla yit toujours li ñu koy ñaan rek mooy lépp lu ñuy am na doon lu gën ci ñun lu gënul ci ñun bu mu nu ko jox waaw ci loolu la ñuy sax di ko ñaan te it di ko sant it ñu ngi gis ni mu ngi koy defal loolu mu indi bi loolu amee suma doomu ndey xam nga ñu dañu regrouper wu ci association nationale des promoteur de lutte donc euh, ci la ma fàllu ne ah, maa ngi doon dox Siteu Papa président ndax doo ko jël ah ma rafet rafetlu ko trop mu woo moom fàll woo per ba ne ko jox na ma accord donc combat bi ci deux heures de temps la taxaw waaw lu vraiment musuma taxawee combat musuma taxawal combat bu yombe man la ko di jox fekkoon na mu conclure ak ñaari ménageries yi ba pare wala def laa demaat ko. non je sais pas xam nga man du ma immixé wu ci ay relation ma Samba ak ma Demba xam naa ni daal bi combat bi amee jafe-jafe woo na ma ne ma te ngaa jël combat bële. donc ma rafetlu ko lool dox ko bu féete boor. bi amu ci benn retard lan la combat bi taxaw na ñoom li ñu warloo ak ñoom def nañu ko on passe à l' acte administratif rek amul leneen li ay la rek am déet waaw non il faut aussi nga comprendre lenn combat yu ci bari comme choc yi dañu koy monter. bu ñu demee tey mënoon naa bàyyi ba làmb ji des vingt vingt et un jours ma ñëw deux semaines ku am na combat yoo am dañu jéem ko régulariser ma ñëw régulariser ko mais j'ai vu que nii je dis bien mbooj bind na ci keneen bind na ci pour libérer tout le monde dafay jaadu rafet ñu libérer leen yéen ñëpp waaw xamal leen ni bis sàngam danañu bëree combat bi mu jeex man ma dem ja def leneen daal ah. liñ la wax ci ñun programme duma ma waxan benn ñaar awma jot bi. te it tollootuma du ma nit ku ñuy defloo déedéet ça c'est pas apte lu ma la wax lu ma gëm la lu may def lu ma man la du dëgg innovation lépp man Abdou mënuma def lu mësta am ci làmb promoteur yëpp jaar nañu fi parce que nag dafay jaadu tout euh, euh, ñu xam ni nag làmb làmb rek la mais li ma la wax nit dina ci am dana ci am am na sax yeneen yoo xam ni danañ ko ci yokk bu dee yaa ngi këyit gi ma la joxoon boo ko téye nga jël ko comme ligne de conduite comme sa comme ni ngeen koy waxee ah di nga gis yeneen yoo xam ne dina ci greffe euh, wax la marketing la c'est-à-dire que aujourd'hui man je suis avec des partenaires ñoo may jàppale pour mu tëgg làmb euh, am na noo xam ne bu ma ko organiser làmb bi mën ngeen ci gis sax lenn loo xam ne du leen neex yéen mooy que ni tey bu ma jëloon cité Papa Sow def ko ci fii ñu ngi fii stade Léopold Sédar Senghor fu waay neex daal di daw dugg mais finalement c'est moi-même qui crée l'insécurité dans cette affaire-là donc dafay jaadu ci li nga xam ne man ci laa nekk di ci yëngu ma créer ay astuces astuce bi moom mooy lan ku nekk yéen a ngi ak seen smartphone yéen a ngi ak seen ay ordinateur moom ngeen di liggéeyee day jaadu ngeen télécharger Agricash boo léegi bu ñu bëggee jëflante ci problème mu xaalis wala ngeen bëgg ko jëflante ak keneen vu que sumay sponsor lañ mais ma def ko gratis loolu boo ko indee nga téléchargé ko nga daal di dugg sinon boo bëggee bàyyi Marius Ndiaye ah pënd beeg ma Samba ak ma Demba ku départ daal di ñëw dugg finalement c'est le promoteur même qui est le mètre de l'insécurité dans cette affaire là donc am na yeneen lu benn bii rek ñu ngi jëmaat ci beneen ndaje boo xam ne c'est beaucoup plus classique ci beneen hôtel lay doon diine lay doon wala leneen lay doon ñu amaat ci beneen taxawaay beneen mbir am na it ay mbir yoo xam ne dina am ci ko ñu Siteu am ci ko ñu Papa Sow yaa ngi dégg wax baax waaw ma fi taxate yow xoolal lu ñuy yabe doomu aadama duma ko may nit lu ma moom it danaa ko jël waaw man gaynde la lu ma moom bu dee fit rek yàlla may na ma ko dama koy wekki kon CNG moo génn këyit ne bala ñoo def dara dafa bëgg ñu nekk dans les rangs en tant que président des promoteurs je dois être parmi les premiers qui seront dans les loolu moo waral suma teewaay tey parce que faut pas prêter le flanc ñoom c'est une instance dirigeante mais sama ay moroomi nawle lañ ndax dam leen war may bu ëllëgee bu ñu toogee ci kanamu taabal ji bu ñu waxee man du ma wax réew mi ku wax ma wax dégg nga ma loolu rek moo ko waral joxante nañu cër trop soto complet mais suñu génnee seen ay directives dafay jaadu nekk yoon ñun ñu respecté ko malgré qu'on naa des rapport yu baax yu am solo mais nag nañ leen respecté charte yi seen teg waaw bala ñu fi jógee danañu jox manager bu nekk convocation suba ñu xam mbër mu nekk suba ban heure lay ñëw euh, moment la boo xam nii euh, c'est un show, hein, c'est un méga show. Il y aura la présence de Pape Diouf, il y aura Ngaka Blende, il y aura Diamant Express, il y aura les troupes folkloriques et autres là. Il y aura, ça sera une tribune aussi pour mes partenaires de délivrer leur message. Ça sera aussi une tribune pour Pape Abdoufa. Vous avez dit l'autre jour da ngeen di taxé naan mbër yi dañuy sème le désordre mais vous êtes les premier à semer le désordre parfois allez on passe loolu non dama ko doon kii rek xam comme léeg-léeg da ngeen ñu koy jam léeg-léeg day jaadu man moom waaw donc day jaadu mu doon tribune Pape Abdou Fall aussi commencé woon nañu ci A xëy na doon jëm Z xëy na defagum nañu A ça sera l'occasion de vous dire que ni ef ak li ci tegu lii lii lay doon dat sàngam lay doon nii lañ ko bëgg a defee ak nii lañ koy defee bon xam nga formule la du dëgg il faut comprendre les choses hein c'est un système de filtrage qui sera mis en exergue euh, am na ñu jot a télécharger am na ñoo xam ni waa Agricash dinañ taxaw foofu boo ñëwee ñu téléchargé la nga daal di ñëw dugg donc euh, dañuy xool y la police y aura des de la sécurité privée ñu xool les façons nous sommes suffisamment outillés pour voir et analyser en profondeur euh, euh, contexte bi li mu laaj. kon supporter fay fekk gratis. man du ma je je fais pas à moitié déedéet je fais pas à moitié y de la l'ADSL gratis boo xam ni y des équipes yoo xam ni dañuy ñëw toog téléchargement rek mooy liggéey da ngay ñëw joxe sa téléphone ñu télécharger la nga dem jaar dugg dem sa yoon tey làmb ja yëpp noonu lay demee c'est-à-dire que je vais me chaque fois que je me déplace avec Agricash je me déplace avec de l'internet gratis ana ayca léegi nag yàlla na yàlla doole jàmm suba may lancer un appel suba bu neexee yàlla à 11h dinañu ubbi buntu yi. 11h 11h danañu ubbi buntu yi service yi dinañ fa nekk ñu jàppalante Siteu na mobiliser wu ñëw Papa Sow mobiliser wu amateurs yi nañu mobiliser wu. képp kuy dund làmb na ngeen ñëw ñu jox làmb beneen visage nañu bàyyi làmb dee na làmb ñaar moo am ci àdduna on veut on ne peut pas du dëgg bëgg naa dama mën naa bëgg naa mënuma faut que les gens ñu comprendre nañu ñaan nañ yàlla ubbi xéewal yi promoteur yëpp am lu ñu daldi tëggee làmb yi ñu def mais communiquons positivement sur la lut waaw mais bu ñu naan làmb dee na lan lay dee làmb yaa ngi am dimanche ak ajjuma samedi dimanche waaw gis naa agriculture booy nii la de boo yul doo dugg amul fale ngeen bàyyi nag événement jàmbur yi ngeen di jàpp di ko def gratis. te presse en ligne bi li ma leen wax moom laa wuyoo. kontaan nga si ñoom non kontaanaguma ci yéen. parce que non defal ndànk non dañuy waxtaan. da ngeen ma interroger et je parle du sérieux damay ne li ngeen di def mooy da ngeen di jël suñu événement jël ko def mise en ligne bi yéen ak seen i patron dem lekk suñu ay koppar. te taxawulul leen làmb moomul leen làmb cela veut dire que ni jaaduwut. xanaa sax gen ñëw ci promoteur bi jël benn bandeau def ko ci seen site yi. jàppale ko bannière. mais am na ñu koy def tamit. non xaaral damay ne dama leen benn mbir ëpp leen ma fulla ëpp leen ma fayda. da ngeen di liggéey damay liggéey dégg nga à la sortie de cette rencontre la fii ci CNG laa leen ko waxee leer na ci seen bopp ku jël ci suma événement def ko direct sans mon avis man je le gère pas tu vas gérer ça avec d'autres mais jàppale leen ñu jàppale leen.